gis naa fi ñaari amateur. waaw waaw gën lu neex la. <laughs> Abingo. non Serigne Diour moom tuuti poste Serigne Diour kay fi mu doon nii. <laughs> man tuuti poste man soxna defar li. ah kon man da nga man man kii man man man man man kii laa waxuma ko de waxuma dara de. Ah, rek. mais ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax di ñaanal Serigne eh. ñu lii ñu fi wax nii lépp euh, lan nga ci jàngatee ak lan nga ci xam tey jii boo amoon xalaat bu rafet di indi tey jii ñu. Fadam maa lay siyaar di siyaare grand Youssou Gueye di siyaare gars seetaan live bi yëpp. baalu ñëpp àq di leen ñaanal jàmm tawfeex sutura. waaw Fadam waxtaan bi am na solo trop. Mm-hmm. xam nga làmb moom. si mm-hmm. coow lay commencé si coow lay jeexee. te bu jeexee sax teewul coow li day mm-hmm. continuer waaye faram comme ni nga koy waxee rek comme te man mi tamit àjjuma laa judd damaa bëgg coow. waaw ah. ah, waaw man coow damay neex trop trop trop waaye faram loo ci mën a dégg. Hmm. mooy faram hmm. nañu xam ne. Modou Lo. Hmm. di mag la koy wax bàyyi woo ci xel ma la Modou Lo. la bëgg a njëkk a faram lu ñu ko dëy Serigne Diouf da ngay jàpp Ama Baldé ak. Boy Niang loolu laaj Fadam. <laughs> kan la ci ko laajee kenn ki daf ne kooku am na combat na dem bëre de kooku. waaye hmm. kon wàcc nga wax ja wàcc wuy ah, ma madame ku jiitu ku jiitu. waaw. comme ça nga nekk numéro un yow yaay roi des arènes comprendre nga. yow nga ne kii laa bëgg faram kan moo la ko mën a xañ mais mais tey jii Modou bu fekkee ne daal bëgg a daa am ñaari combat bëgg a choisir Boy Niang dafa am lu mu yaakaar ci Boy moo tax mu ko njëkk a wala. Ama Baldé arrangé wu. yaa gën a xam làmb. non yu euh, non Serigne Diour da nga may tontu foofu direct. Lo ah. mooy le roi des arènes moo yor raay gi moo yor couronne bi. bu fekkee ne Boy Niang la choisir njëkk a bëreel daf caa am yaakaar wala lan la. wala Ama Baldé da ko aram chaque jour da ngay wax benn affaire mais xam na doo ci bàyyi xel. fu Balla Gaye essayé kan moo fa bëgg réussir. ba léegi ñoom ñaar xeex bi jeexagul. Grand Issa Gueye. Grand Issa Gueye bisimilah. di nuyu suma rakk bopp ji Rat Fall depuis Rome maa ngi lay ziar Rat di ziar gars yi ci di ziar gars yi ñëpp ñu ci bi di di te vraiment ci weeru koor gi di ñaan yàlla sunu borom li si jaamu yépp mu nekk ay piyado nekk njariñ ci suñu suñu réew <laughs> xolama cey imik cey xolama gul gi rek xolama rek Să buși patru dur, mă gândesc iar buba. <laughs> No, gra, mai dubde, mai gelo, gra, mai gelo. dă man li ma bukan bëggoon wax rek tuuti xam naa ne grand Henri dugg na maa ngi koy ziare bu baax a baax li ma ci bëggoon wax mooy lamb ji bu yàqoo na amateur yi am fulla ni ni ni man Modou Lo sama mbokk deret la Boy Niang sama mbeur la loolu xam nga ko. deug la buñu bu ñu Dakar maa ngi Modou ñooy bokk dekk buñu ñu ñoy ñooy bokk benn koñ buñu ñu ndax lu ko lañ jëm. dama ni. Mhm. Bira Sène mo wax fi senegal yépp dekk mu ne lan Modou Lo amul droit jël ben mbeur day xaar Ama balde moko Sénégal yëpp di ko dégg ci seen nopp mu mu wëlbatiku waat ñëwaat defaat ci bës waxaat beneen beneen wax boo xamante ne benn bokk ci sa morom kilifa du waxee noonu ci loo xam ne motul motul deux mois wala wala wala trois mois lu yàqu ci làmb ji moo ko yàq gis nga bu ñu bëggee waxante dëgg mooy. Fadam Fadam Fadam. Grand Youssou doguma ko mais bi muy wax loolu boobu kii blessé gul de Ama Balde blessé gul. man mais kon wuyu ma cas de force majeure moo war a jeex ci làmb nekk ba naan kon kii dafa war na bokk ci taxi bu blessé bu blessé wu li ma lay wax dama ne. kilifa wax booy wax booy nekkee kilifa. sëriñ Modou Moustapha bi muy bi muy nekkee xalifa Cheikh Ahmadou Bamba. daf daan dem da daan da daan di waxtaan ak ñëpp suñ ko laajee loo ci jublu mu ne bu ma juumee ñëpp juum. ma yow parce que dafa teg bi ko neex. Aliou bi. micro bi toog jël décision bi ko neex wax li mu wax ba pare. léegi nag. ñaar yooyu ñaar ñaar moo ci am mooy amateurs yi jël seen responsabilité. beneen bi ci des mooy tamit ñu saytu ba xam est-ce que vraiment Luc Nicolaï Enco bëgg na làmb parce que Fadam. lig làmb ji mu mës a bëgg kooku ko bëgg a xañ tribunal am na ci yoon ba tey diggante mu Lô ak Eumeu Sène tribunal am na ci yoon ba tey lu ne gis nañ ko fii xeet bu ne gis nañ ko fi te ñu benn acte ñu posé ko ci loolu tamit sonoon jaaxal na ñi nga xam ne vraiment ñooy amateur làmb parce que moom bëgg na vraiment làmb ji te it lan moo taxit Modou Lô ak ni mu meloon ak Luc Nicolaï ak fi Modou Lô jaar ak Luc Nicolaï nara xañ nit ni ko la ab combat dem di bëri la Gaston Mbengue est-ce que timit loolu ya quelque chose amul lu muy may nit ñi ñu xam ne est-ce que lig kon jekku na wala jekkul pour tëgg làmb ci mais mais grand Youssou Gueye yaakaar naa ne man Modou Lo digganteem ak ki nga xam ne nii mooy lig ni ko laay waaw la meloon ba léegi moom la mel mais dama yaakaar ne Modou Lo dafa nekk benn athlète boo xam ne dafa am carrière am te yaakaar naa ne nit ko am carrière mais mais lig ni ko laay dafa am intérêt parce que combat bii nii dafa am enjeu gis nga le premier janvier ba ñu jëm ne faram du caaxaan de maanaam le premier janvier deux mille vingt quatre bu caaxaan waaw date date la boo xamante ni c'est une date dans parce que date la boo xam ne ku ko ci am dafa neex enjeu yi moo grave waaw naa bàyyi grand. mais léegi yow léegi yow grand Youssouf Gueye pour waxtaan wi mën a campé wu grand Youssouf Gueye kan nga bëggoon mu bëreeg ak. Modou Lo njëkk a bëreeg Modou a Balde coow lu jeex Modou bu daanoon Sénégal gépp te daanu am bëriwul am Ama Balde dégg fi dara. maa la wax hmm. lii parce que fi ko am li li ko Ama teg mbër mus ko koo teg nañ waxante dëgg bu fekkee da ngaa bokk moom da ngay bàyyi da xam loolu Modou Lo Ama Baldé képp moom la jàkkaarloogul ci ci ci ci ci ci kii nu mu tuddati. Hmm. fu ne fu jéem nañ faa taxaw ñoom ñaar fu ne lim daan ruube mbër bu mu mus a mbër rek Ama ruube na ko. léegi nag loolu dañuy des fi mu moom ah. a am fu mu yeggee dafa war am fu yeggee ca biir géew ba la war a yeggee est-ce que. li li Ama Baldé teg Papa saw tek ko yenen kay bu ko tege Modou dina ci genn loolu moy point d'interrogation loolu moy neexal lamb loolu amateur yëpp di laaj Xaadim Njaay ak ak ak ak ak Boy Kayre buñ koy teug fi bi ko Taïga production di teug te Youssou Ndour ko arbitre loolu la won boobu ñom ñaar ñofi man Eumeu Sène Ousa Sow bu ñu leen dajale ñom ñaar ñofi man mais lamb jii ni même Boy Niang limi limi limi joge ci exploit limi reuy reuy reuy reuy reuy xam nga ne boo doon Ama Baldé Boy Niang bo don Ama Baldé nu mu tuddati ak Modou Lo nga tëgg ko ci sa biir néeg yow képp yow Fadam nga tëgg ko ci sa néeg ñoom ñaar ñu bëri nga yor nga yor nga yor kaset bi bu la neexee boo xëyee suba jaay ko trois cent millions waa waa TFM trois cent millions nga jaay dem ko yow donc yaa ko yor yaa ko seetal daal bu neexee nga jaay dem ko nañ waxante dëgg grand Aliou Ndiaye grand balaa Serigne Ndiour a ñëw loolu mooy dëgg trois cent millions lañ ko jaay waxtaan bi neex na trop vraiment macha allah comme niñ ko waxee nag xam nga làmb ji dafay bëgg nga jaxasoo te warul a jaxasoo ma ni lam dégguñ la baax Aliou Ndiaye dégguñ la warul a jaxasoo parce que euh, coow yi ñu gis muy ñëw ci juste problème mu adversité pour man dafa mën a ñàkk en fait xam nga tax mu war a mën a ñàkk war a mën a euh, tey Modou Lo yàlla def dafa jël ñaari avance ñaari avance yooyu nag tey mhm. polémique bi mooy kan la war a njëkk a

mais mais mais grand Aliou Ndiaye boo amee Modou Lo du gën a nekk dara ñaari avance yi mu jël moom ci Pikine dana bokk ci ñaari avance yi nga xamante ni ñoo koy gën a sonal ci làmbam loolu maa la ko wax te bu du wér ñaari avance yi mu jël la grand Aliou Ndiaye dégguma li wax de Boy Niang Ama ñoom ñaar ñëpp mburu foofu ko fariñ fu mu ci dal du baax ci moom waaw pël bi moom dégg bi moom dafa wane boppam moom nee na ko yow bu ma tëddoon bay nelaw ñuy yeema sax yow il faut ma am nu ma def ak yow yow maa la mën maa la dàq xeex maa la dàq bëre te yow rek laay wër xam nga Ama Baldé moom moom nëbb li muy wër kenn kenn kenn nëbb ko daa taable wu te defe naa ni Modou Lo mais grand Aliou Ndiaye mel da ngeen bëgg a fàtte non xaju fi non Modou Lo man man daal qualité bu mu am rek Ama Baldé am na bu ko bu ko raw raw bu ko dem fële ñëw toog di ko xaar waaw waaw loolu moom moom la ci dara sax xam nga tey comme comme ni ma koy waxee rek tey c'est dans les deux sens ah que ça soit Ama Baldé ou man nee naa le sax ci Boy Niang sax lay gën a bonee que ci Ama Baldé xam nga Boy Niang boolewul dara ak wax ju bari boolewul dara ak wax yore mom mi ngi tok di xaar rek mhm. te xaar ko war nak day tok xaar rek que ça soit mu bëreeg Ama Balde ba pare mu bëreeg mom ba pare yépp ci yem mais dal xamna ni modlo fi mu dal ni ñaari ama ci mu jël ni mom dina ko saf sax Serigne Diour lu ko su Aliou ñay wax lu ma ci xalat xalaat waaw xam nga këts lu mu expliqué non ne modlo dina saf ci mom sàpp mais xam nga modlo dafa nekk ko xamantene su quoi mën naa juum mooy mbër daanagu ko pikin. te. bul fàttali ma ma dellu la ci dara. Eumeu Sène bi mhm. dàq pikin. mu waaw ba pare ba pare koron ba fa la ko jëlee. boobu ba léegi. Mhm. bëreegul léegi nag lan moo tax. Modou Lo tëb Ama Baldé ne day jëli ji Boy Niang lan moo tax. ba xam Modou dafa bëgg kenn ki su ko daanee keneen ki coow am fa la bu daanee kenn ki ba pare keneen ki buy ñëw day indi engouement ma day indi coow lu rëy da leen bàyyi coow li maanaam moom coow la yëngal pikin li bu bëree kii coow day am bu daanee bu daanoo coow day am bu jógee am. kon yow da jàpp ne Modou Lo calcul la jëlee. Ah, loolu wax moo tax làmb moom Balla ngay jeex rek téléphone yi jóg. booy bi laay bëri <laughs> dugal certificat bi wér na. yàgg nañ tam du ñay dof parce que Modou parce que parce que Modou essa bi xam na ne booy ñal ci lu mu joggé da jugee essa da fa yor coowu làmb xam lu ma la parce que ñom xam dañ ne daan Balla Gaye sax mo gën nekk roi des arènes comme ni ñu ko waxee comprendre nga mhm. légui Ama Baldé dafa am combat bu gars yi fàtte loolu Ama Baldé dafa nekk ci benen contrat mu giri Bordeaux mhm. giri Bordeaux gañul de Ama Baldé mo gaañu loolu gars dañ koy fàtte. Ama Baldé euh. moo blessé. ne damaa blessé. dugal léegi bu dugalee. xaaral ma daaneel xaaral ñëw. léegi Ama Baldé. Ama Baldé instant yii bu dugalee nii nii nii moo kii la ñuy jàppal moo euh, Gris Bordeaux la ñuy jàppal daal. bu leen fàtte ne Boy Niang mi ngay wax ni ak ak Modou Lo ba léegi nekk ñu CNG. Modou Lo ak Ama Baldé ñoo nekk CNG. comprendre nga fi ne Modou ak kii buñ dawoon Modou ak euh, Boy Niang buñ dawoon ni ah buñ dawoon Mbagan Mbagan da leen a jéem a topp ak ki nga xamante ne mooy Ama Balde buñ dawoon CNG da leen di topp parce que ñoom dañoo régulariser seen combat ba pare foofu. garaay jugee man de lu ma ci wax li ma la ciy tegal fanam xawma ku ci njëkk a bëri Modou Lo waaye yërëm naa la. ma ci njëkk a bëri Modou Lo waaye yërëm naa la. waaw maa la ah. lamb nag laa lay wax dama la ni. lu ma la waxee lamb rek intéressé d'histoire. gis nga Tyson Tyson keroog ba mu wàccee ba yàlla dogalee mu daan dem si yàlla Mor Fadam taxaw café de Rome ni yéen mbëri ndaw yi na ngeen ma moytu <laughs> Petit Diagne ko woo ba mu ñëw mu ne ko mu ne ko maayit mu ne ko waaw mu ne ko da ngay fexe ba Bombardier ak Yékini bëri bu ñu bëree ñoom ñaar ku ci daan nga jël ko mais ñaari booy yi koo ci laal lay daan mm-hmm. mais waxtaanu guddi vingt cinq millions lañ ko fekkee biir këram dugal jox ko ko te booba lamb ji bi mu bëri bi mu jógee Mor Fadam quinze millions. mais mais mais grand Issou da am benn point boo wax boo xam ne dafa sensible trop muy Ama Baldé ak Boy Niang lan moo tax nga njëkkalee ci yërëm ku njëkk. waaw xam nga lu tax Modou Lo benn ndax waaw xam nga nit mbokk bu xam te dafa am sas boo xam ne Modou daf ko ah, daf moom même bu ko jëlul ñi muy àndal dañ ko jël suñ première sortie ci couronne couronne des arènes duñ couronne droit des arènes duñ ko perte lamb lay wax de mm. te non du ci moom Modou lamb lim ko jaraloon du ko mais lamb day dem ba foo xam ne yow mbër mi du yaay bëri dafa am ñoo àndal ñoo nekk sa ginnaaw ñoo xam ne ñooy bëri gis nga bërki am na ben combat bu am fii bërki dem ci combat xale xam naa seetluwu leen ko mais làmb ji demee noonu am na fi làmb tur moo tudd noonu dama la ni làmbi Ama Baldé ak Modou bu njëkk ba foo ko mos a seet xool ko da ngay xam ne Ama fa taxaw tiim Modou Lo ci côté yëpp sur tous les plans kon su Modou xëccoo génn dem taxawé de côté fexé ba am kële def na yëfu lamb parce que Manga de rena li ma lay wax ni ma ko fekk mu koy wax xaw mi ngi may seetaanam déet lànk hmm. bañ a daan doon ak doon ak mbër champion doon ak mbër champion deug dañ koy jekum rëcc ci bis ba fanam ñun fi lañu timis fi timis jëtul duma fi timis jëtul jant bi langul wonañ ci mbeur lu mat quatre vingt dix minutes wala quarante cinq minutes mbër mi ñëwul taxaw lànk ni du dugg ci biir géew bi te bu duggee ba mu dugg ba ba mu duggee ci biir géew dafa def affaire. xëy lamb tegtal yàgg na ci te lamb jii képp ku la ne lamb Modou Ama Baldé du ay tegtal da wax lu ko neex. waaw dégg naa fi ngay waxee man foofu man foofu man foofu. ah grand Aliou Ndiaye dama grand Aliou Ndiaye dama dégg sax nga wax benn wax bu garaaw mooy. Ama Baldé ak Modou Lo Ama ak Boy Niang Modou Lo mënta génn ci ñaari xale yooyu comme ci njëkkee jël problème la loolu grand Aliou Ndiaye damaa yaakaar da nga fàtte Modou Lo euh, fàtte xaju fii xam nga yàlla def na Modou nekk na le roi des arènes yàlla def na ko ci njàmbaaram ci fulaam ak ci faydam xëy na moo ko indi tey fi mu nekk ci ci làmb wax dëgg yàlla bañkat la na waaye gis nga nit da am fooy toll da ngay am xale yoo xamante ni ñay ñooy nekk ci ginnaaw naan ñi bunt bi kan-kan surtout xale bi ci gën a moom moom fuggul naan ko bunt bi dafa ñëw indaale kuuru Baay Faalam di daaj ji bunt bi Moodu Moodu Moodu nga xam ni waxuma lay yee mooy Ama Balde waxuma la wee waa kër Moodu rek mais waa koñ bi sax da leen a yee tey moom képp ku hmm? nekkoon parcelle di nelaw boo ñëwee tey amaa Balde déranger na loolu yàlla def na ko tey ñëpp xam nañ ni tey Ama Baldé yéene bi mu am tey ak audace bi mu am tey pour bëgg ñëw ne Modou Lo maay def loo xam ne lu nit mës a gis ci làmb xam nga loolu daf ñuy delloo ci ginnaaw bi ñuy toog bi Balla Gaye dinaan Yékini yow xaw ma kan waaye man doo sama roi des arènes bu ma la jàppee nga xam ne mënoo bari ci ci loolu la ñuy def

nag tey su fekkente ni tey booy ñaa ak euh, Modou Lo bëriwuñu avant donc ce qui fekk que nag tey Ama Baldé mooy jàkkaarloo woot ak Modou Lo mais après loolu ça dépend ci texte yi ci bira seen mi nga xamante ni tey moom mooy ki nga xamante ni tey mooy naan nii la mbir di demee naka la tegee mbir pour ñu mën a xam après bu sa bu saison bi jeexee Ama ba kii euh, euh, ni ñu koy waxee sax Modou Lo kan lay njëkk a bëreel comprendre

loolu dinañ ci ñëw ni Ama Baldé Gris Bordeaux dafa dem saison prochaine. donc là mën nañoo jàpp ni ci diggante bi Modou Lo dina bëreeg euh, dina bëreeg Boy avant peut-être que ni avant que ni Boy Niang ak Gris Bordeaux di di laalante c'est une possibilité loolu yëpp possibilité la mais dans les deux cas man nee naa la dans les deux cas Modou Lo jël na ñaari adversaire yoo xamante ni tey non bu tëddee du nelaw. Serigne Ndiour looy tëjee ñu jox la ñu defaat tour de table ñu tëj. waaw waaw waaw ñooñu yàq suñu live. ñu moom ndogu dañ ba pare faram. faram faram non maa ngi ñëwaat faram faram comme lu lu ñu expliqué sànq rek. gars yi bu benn affaire. gars yi dafa mën dañoo xaw a fàtte Modou Lo lu mu def ci làmb quoi. waaw waaw Modou Lo Modou Lo. waaw waaw waaw te loxo bi xor na. man nuyu naa loxo bi loxo bi comme comme comme comme comme comme feeru brique yooyu wow koŋŋ la def. wax loolu loxo bi wow na yaram bi ës na. te Modou Lo affaire. Modou Lo ba jël la liir na kon yow da jàpp le Modou Lo jël bi mu préparé bi mu préparé pour. bàyyi fi Ama Baldé ñëw ne boo si si mais boo ñaaw bu fàttali boo ñaaw nekkul li ngay natt ci moom moom ngay fekk ci moom mën na changé leneen. moo dégg mhm. parce que booy ñaa da koy xaar si lii mu ñëw changé indi leneen parce que moom bët lay bëree. waaw bu ko optimiste la ma bët lay bëree bët. boo ko dàqee ci boo ñaa bët lay bëree bët. te Modou Lo mhm. dafa nekk koo xam te ne boo teg boo tegee droit rek arrangé nga ko. te boo lay teg. waaye Fadam. aywa loolu Fadam. sama yëngu commencé bi ku teg gos aaraale ko. lu mu loo di teg. loolu ma jaaxal. eh Serigne eh, Tafa Kañ nee na Sabali dugal na de. <laughs> avocat yi police lañ la yóbbu yóbbu police ñuy waxtaan la nga naan sabare dugal. Ah, xam ah, ah, nga Fadam bàyyi ñu bàyyi mu tëdd day ndogu ji. ñu bàyyi Fadam ñu bàyyi grand Youssou ak grand Ali man ñu dagg foofu a ndogu ji. yow daal quelque sorte. <laughs> xam nga li tax li ngay wax mu neex. Hmm. parce que Modou Lo tànk bi muy teg. Hmm. boobu la booy ñaa gën sabar. ma ni euh, gis nga. déglu Aliou Ndiaye teg tànk boobu ci la Boy Niang. waaw sabar. Mm-hmm. la Ama Baldé tamit gën a sabar. Mm-hmm. te xeetu mm-hmm. boobu lay gën a lay gën a lay gën a leere lay gën a sete. Ama Baldé wax noonu moo tax man la. mais kët si kët ma ñamal foofu benn. waaw. boobu ñoom ñoom ñoom ñaar ñuy teg. ku ko tegal Modou Lo du a la. <laughs> déggoo ma ni la euh, tey ñaari xale yi. dafa kañ nee na bu boo ñaata nga tàggu gros nag. déedéet déglu ma xam nga tey yàlla def na moi je sais que ni. je sais que ni tey. mooy genre mën na ci ñaari boor yëpp. Mhm. mais nee la mhm. ñaari xale yii. xam nga liñ daan mën na ci ñaar déggu la dëkkat ci Ali Ndiaye mën na ci ñaari bor yan ñaari ñaari tank yépp la mën boy ñaar mais amna tank bo boo moy sa for amna bu gëna a nekk sa for waaw mais lolu day am lolu lolu lolu amna mën nga am tank bo xam dafa dafay ci mën nga am tank bo xamante ni tey da nga koy def c'est parce que xam nga ni da ngay déranger sa adversaire mhm. mhm. lolu dafa lolu da fay am ci lamb moy tax bo amé adversaire li tax ñu naan dañu jël temps préparer ko loolu ci la bokk bu la yàlla defee nag nga mën a liggéey ci sa beneen tànk contraire bi loolu mm. avantage la ci làmb euh. waaye ma nag tey balaa ñuy mën a xam booy xeexu booy ñaa dëggantaan mu jàkkaarloog Modou Lo ci ah. boobu ngeen di wax noonu loolu mm. waaw loolu dinañ ci mais Fadam Fadam Fadam Fadam Fadam Fadam gannaaw àll bu fa am ne Modou Lo day basket de non xam nga Modou Lo wàcc xaaral waaw su ñooy tàggatoo rek mooy. Euh, Fara dafa bëgg Fara dafa bëgg a ndogu a attaqué na bu di leen ñaanalaat jàmm yéen ñëpp de di leen ziar bu baax a baax waaye li may wax ak Boy Niang képp ku koy wax te boole woo ci lekk man ñemewuma la. bu ko waxati ko waxati rek. wala arbitre arbitre mu jeexee décision man ñemewuma la. déedéet. waaw baax na. Hmm? bu ko ci dellu ndax man wax du jeex. Eh, grand Aliou Ndiaye kon ba beneen